Assalamualaikum, assalamualaikum mbokk internet yi ñuy seetaan man la Arame Zele tey maa ñëwaat di leen nuyu di leen ziar yéen waa Pikine Info di leen jox seen wàccuwaay waa spécial Ramadan nag la ñu wax weeru koor weeru màgg boobu weer bu sell bi nga xam ne macha allah ñëpp koy xaar di ko man bu ma sañoon day nekk ñaari weer tey rek dama ñëw fii Pikine talib bu bees diggante tali bu bees tali bu mag ñëw seet si ku ñuy wax Fall allah bëgg ko muy jàng lu neex di zikkar lu ah duma leen ko wax nag mooy moom moom kan ndax am na lu mu doon ci réew mi ci nga xamante ni moom la xale yi bëgg ci ci ci ci wàllu murid wàllu muridisme xale yi fonk ko bu ci kanamee dineen wax mooy kan muy muy taalibeem ah macha allah ma bëgg nga nuyu mbokk internet yi nga xamante ni ñoo lay seetaan. waaw asalaamaaleykum aram maa ngi nuyu ñëpp di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di nuyu képp ki nga xam rek yaa ngi seetaan. di jiital nuyo bi ci ki nga xam ne mooy suñu xalifa Cheikh al Mountakha al Basir di ko ñaanal suñu boroom bàyyi ko fi bu baax a baax a baax noonu lañuy ñuy ñaanalee bépp kër diine teg ko ci loxoom di ñaanal sama buntu tamit si Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di maam na borom Daaru Noreyni ma tuddee la bu sol de la jeunesse suñu borom bàyyi ko fi bu baax a baax a baax di am mbégte ak contentement ci dalal gi nga ma dalal Aram Zele sama sœur di ñaan lépp luñ fi waxtaanee rek baa def ko fi rek mu doon njëriñ lu fi tukkee dem ci doomu aadama yi salaam waa mbokk mi ngi noonu tala kan mooy murtala mbay waaw murtala mbay nag buñ koy wax dina yomba définir nak euh, murtala mbay benn jeune la bu juddoo pikin yaro pikin màggee pikin waaw nekk murtala sénégal nag mais nag lu am pikin la di taalibe boroom daaru juddoo ci yoonu mburit nekk xale di yëngu ci la di ci góor góorlu di ci bay suñu waar donte dafa gun si dara waaye ñu ngi ciy góorgóorlu par nànk-nànk. Mhm. waaw ma bëgg nga nuyu mbokk internet di ñu seetaan waaye dama bëgg nga nuyoo leen ak noo xamante ni yëfi Baye Fall la rek ndax tey spécial Baye Fall maa la moom tey tey dara warta yomb waa aca Bambayan danal wow, wow. Bermemak mi di seitane Benok bersundau si Dusun bakannya nyonginyan mbër mi yàlla ko daane sëriñ bi noo ngi lay dagaan faxiir dafay nangu dagaan nangul ñu lépp luñ la ñaan ndax yàlla xarnu be ñoo ngi dagaan ci Mustapha mi nekk mar waa tan safar ak ak am ni Mustapha mi yàlla jébbal xarnu bee ak ak ki mboolem ay rakam ak ak seen bàyyi nu ak ak seen xibamba am sarañu naatal xarnu bee mboolem burit Ya a aram di coba baakaar yi nu bay bay bay du nu Bamba sering bi geesul xarnu bi Mbàkke dangay borom mi mboot te tawan gi lool def ma paret may lappato wa xarnu bi aw ma maka ma di lawo waaye murit yi ñoomo noonu la ñuy nuyoo rek aram ah loolu foor na macha allah dégg nga ko mu way ko tedd gi kooku nga xam Mbacke Balla ay soburi sëñ Mbacke Maram kooku lu ko waay waay mu neex kooku mooy Seexul Xadim yaakaaru gaañi nee nañ mooy borom jamono ñii nee nañ mooy ne réew mi Bàmbaa ko moom ah ndax kenn dina ko weddi waaw Mourtala ah xale yi dañ la bëgg de waaw xale yi dañ la bëgg ma gis ni foo zikare rek xale yi topp la lan mooy sa secret. waaw ñun de sëñ Bàmba rek mooy sunu secret moom lañ diwoo ndax dama koy faral di wax. naan buñ ko xamee te jàpp ko lu ñu yootu mu xëccal ñu ko waaye buñ ko xamul rek te wumpali ko lu mu ñu jox ñu yàq ko mm-hmm. te sëriñ bi moo yor suñu lépp te moom rek leen xeeñoo nag ndax euh, daa mu nekk ñun lu bàyyi ak ndey mënul si ñun mm-hmm. ndax dama koy faral di wax naan sëñ Bamba day fekk ku ñëpp xeeboon ay cosaanam mm-hmm. mu fal ko ba ñëpp faale ko ci ay moroomam di fekk ku mel ni man jàngul liggéeyul mu sol ko xam-xam seexal moom boroomam di fekk murit bu dof bu tilim ferul baa mu fóot ba mu set tofal mbooloom boroomam donte loolu la mën ci ñun nag ñun moom moo ñu amal njariñ waaye ñu amaluñ ko njariñ te gone yi donte ci ñun rek la ñuy loolu rek lañuy sëriñ bi rek lañuy ñuy ci ñun moo tax te li ñuy gis ci ñun ba ñuy bëgg du suñu jàmbaar suñu ndimbal la rek bu sunu borom dimbali ñu ku tedd ki def ko ci ñun ñu koy santee bu baax a baax te yàlla buñ si rëy yàlla buñ si réer yàlla buñ si bew waaw kooku mooy Mourtala dégg ngeen li mu wax ci Serigne Bamba Khadim Rasoul suñu yaakaar tey ak ëllëg waaw Mourtala ñu gis ne fan yee da génnewul benn singal nag muy singal bu doy waar màggal gi mu demee na mu demee woon Covid 19 lëmbe réew mi lépp na tekk lépp na toog dara yënguwul ñu naan màggal dina am am du am Serigne Mountakha taxawal ne màggal day am ak nam ko waxee ca yaram ga ca yuum ga ah ak baatinam ga. macha allah nga génn ci wayu doy waar ñu koy wax ba Baññaa ma may sëriñ bu mat mu di ma may di ay di dàkki mooy leeru mbooti ragalam sama sëriñ bi ma gisal li sama sëriñ bi ma yagal li ma yaakul di ma xamal lu ma xamul du sugee du xam-xam di amal lu amul ma mbaam mbaam mbaam idée boobu nan la ñëwee ci waaw laataa loolu aram sax jërëjëf damay damay nuyoo passage waa Njiin Prodac muy samay frère ku ci mel ni sëñ Fallou Benjamin ak Mbaye si ak équipe bi yëpp ndax def nañ si liggéey bu mucc ayib ndax gis nañ ni single bi màggal gi def na bëriw bu doy waar nit ñi bëgg ko macha allah télé yi bëgg ko di ko teg. waaw mu doon nag mu jëlaat lépp delloo leen ko war na Serigne Bamba ñoom ñoo mu ci gënoon sonn ndax mbokk dafa dafa doy waar parce que ay nit tamit ñëw nañ fa nag wax dëgg yàlla def nañ tamit ñoom lu ñu war a def ak ñoom. waaye yenn saa yi deret day sot. waaw suñ fàllu singal bi téye nañ ko fu lu yàgg saa bu ñu naree jub ngir sax jël ko mu ne noo pareegul day tëdd ba 4 heures du matin si safar gi barke Serigne Bamba jug am lu mu changé am lu mu defar lu bëgg mu baax rek te lépp li nga xam ne mu ngi si doon séntu donte sax am nañ ko mais ñun suñu yéene gënoon na gënoon nañ bëgg mu ëpp lii mhm. mais moom li ko ci war lépp mi ngi def mom dañ koy ñaanal moom mbay si frère waa diwan bi kër ga bàyyiwul ñëpp suñu yaay xadi xadi xadi sekk suñu borom bàyyi ko fi ba mu fekkee lépp waaw bamba bañ naa bi nag noonu daal la demee gis nga ama bi dafa man sama lépp sëriñ bi la wax dëgg man man sama lépp sëriñ bi la lu ñëw sax damay jàpp ni sëriñ bi la foofu laa nekk ak sëriñ bi waaw te dund ak bi wax waaw mu koy sante na ko tedd ki bu baax a baax ñoom di leen ñaanal di jëlaat lépp di leen ko jox waa ñin Prodac waaw ak Boga Mbaye mi nga xam ni idée bi daanaka idée bi ngay laaj ci moom la jógee moom moo ñëw ne Bamba bañ naa ngay jël ñu def ko nii retourné ko dëpp ko nangam sangam ba defar ko nit da ngay ñëw ndax xam nga benn nit mënul dara benn lam kase sa loxo du yëngu waaw nit dañuy ñëw ku ci mel ni Lil Pro indi idéem Pawali Boga ñi andal sama staff gars yi ku bunda bu ñëw buñ dajalee day den loo xam buñ ko accombale dina mën jur lu baax te yaakaar single bi wax dëgg yàlla depuis màggal gi daaw la woon mais ba léegi nit ñi dañ ko bëgg télé di ko teg ba léegi waaw liggéey bu mucc ayib nag mooy def noonu ndax booy def mbir da ngay def ni dina dina dina dina dina fonctionner à long terme waaw mais pas nga def loo xam ni day am benn durée bu éphémère quoi parce que job da nga war a liggéey ci liggéey boo xam ni nit ñi dinañ ko mën di xëcc dinañ ko mën di bëgg di ko dund te yaakaar naa job bu baax loolu lay jur te bàmb bañ naa bi noonu la demee. Mm-hmm. Mm. waaw parole yi nga ci wax yan parole la foo jëlee parole yi pare yooyu du parole xale de. <laughs> waaw xam ñun moom ñun mooy sëriñ bi moo ñuy dee rek ñun ay waxi sëriñ bi rek la ñuy wax ndax damay wax naan. bu leen ma yéem yéem leen ko moom du maay ki wax bàmba mooy ka di wax ñun waxande lañ gunu soli wax buñ ñu ibbee ñuy làmminam mhm. waaw ñun li ñuy wax ay waxi jàmbur la mhm. waxi sëriñ bi la euh, dama siyaare ji benn mag am numéro Moustapha Fall di ko ñaanal suñu borom bàyyi ko fi mu ne ma murit yi bëri wax réyu ñu làmmin mhm. mu ne ma yi ñuy wax ni yëpp sëriñ bi wax na ko boppam ba noppi kon waaw kon sëriñ bi xëy na nag euh, waxande gi mu demee ndax euh, ñun ay ay ay ay ay ay wolof lañ te sëriñ bi xasida yi muy bind lu ci bëri day nettali ay jaar-jaaram fi mu dem ak li mu def nangam ndax wax dëgg yàlla jaloore borom moo koy nettali borom moom moo ko dani ko dee dàqul ka daw dàqul jaloore borom moo koy nettali borom. maa dégg sama papa daan ko wax de Mas Ndiaye. waaw wallaay ndeysaan sunu papa ji yàlla na ko borom bi defal jàmm fa mu nekk waaw yàlla na ko borom bi ndax gëm nañ ni bu baax moom fa mu nekk mu ngi fay sant bu baax gënal na ko fi mu jóge ndax saa bu bisam ñëwee rek ñu xam ci dara nit ku baax ku bëggoon mbokk ñu koy ñaanal suñu borom tamit defal ko jàmm fa mu nekk waaw ndax sëñ Touba ñu ñëwaat ci sujet bi rek ci bàmm bañ naa bi ay waxi jàmbur la rek ñun ay waxi sëriñ Touba la ñuy wax sëriñ bi moom moo ñuy dee ñun duñ ci dara matuñu lenn moo tax dama ne euh, di ma setal ci waxi bañ bokkuma ku yéen a jëfi bañ mu ne ko tëf mu ne suluñ suluñ maanaam mooy daanu. waaw <laughs> toppali fetalam. waaw di ma fëlal pexe mu ñaaw di ma teral ren ak daaw di ma teral sama ginnaaw di ma teral sama kanam. waaw loolu laa wax ci bamb bañ naa mu nekk loo xam ne murit bu nekk nag da nga si gis sa bopp bu fekkee yaa ngi am yëg-yëg si sëriñ bi. waaw murit bu nekk boo amee yëg-yëg si sëriñ bi yow way bi day mel ni yow lañ ko wayal. man maa xam nga ne way boobu jooy naa bu baax a baax xam naa ci dara war na sëriñ Touba ku am xol bu boo rek. xol bu oyof rek di nga am looy sentir ci woy boobu parce que am na ay mélodie mhm. même bu fekkee bu dul paroles yi sax woy bi dafa am ndeysaan ku déglu di nga am ay frisson yoo xam ne di nga ko yëg bu fekkee yow sa deret oyof na di nga am looy sentir ci woy bi même bu fekkee déglu paroles yi carrément parce que loo gis dafa am fond ak forme mooy saar ak baatin moom la ñuy wax contenu ak contenance parce que aperçu bi mooy li nga xam ne mooy mélodie yeeg daw yaram bi way yi def mais dëgg baatin bi mooy li nga xam ne mooy paroles yi mhm. jëriñ gim lay jariñ te boo dee murit dëgg day mel ni yow loolu yow yaa ko waxal sa bopp parce que sëriñ bi foofu lay jaar ak yow. jaar mm-hmm. mm-hmm. waa Mourtalla moom tur bi fan la jógee kan lañ la tuddee sëñ Mourtalla mu mag mi wala kan. waaw man nag euh, sëñ moom jërëjëf Adam jërëjëf Adam bu mu dugg duggaloon foofu sax damay juum jërëjëf santaat naa la bu baax ci lool merci beaucoup yàlla na la suñu borom defal jàmm. sëñ Mourtala Amar lañ ma tuddee moom ñu tuddee ko sëñ Mourtala mu mag mi mu nekk euh, ambassadeur ñoom ñaar ñu ànd fu ne muy sama sëriñu jur bu góor Talla Mbaye di ko ñaanal moom tamit sama papa suñu borom bàyyi ko fi ba mu fekkee lépp muy jëwriñ ci kër ga kër sëñ Mourtala Amar ñu ràññee ko fa bu baax a baax a baax a baax mu yàgg faa def ay mbir yu ne ñëpp xam ko ci kër ga ma nekk taa mu tuddee ma ko sëñ Mourtala muy sama sëriñ tamit di nit ku baax koo xam ne dañuy déggoo ci yu bëri di ñaanal tamit eh, yan bi nga xam ne xalif bi mu toog muy xalifa sëñ Mamor Fari Mamar suñu borom gën ko oyofal ci moom ndax eh, murit la te tarbiyu na ñu mu war a tarbiyu waaw moom sama turandoo sëñ Moussala Amar mm, ñu ngi koy ñaanal bu baax baax. mu mel ni nag Talla mbaa yow yoon bii nga ji xam yoonu Baye Fall dafa doon loo dafa <laughs> mu ni Baye Fall nak dafa am na mu war a mel ndax yow yoon bi nga jël mosuñu la ci am ay problème yoo ci jaaro wala dara. waaw yow laaj nga li nga war a laaj daal ndax euh, de parce que damay wax naan j'ai une vie remplie de joie et de tristesse ama bu dee dëgg la ndax euh, sama waajur fekk na ma sax ci cant ak ay nomba ak ay xiir waaw mais nag dañ na loo xamul baatin ba doo ko fonk mm-hmm. te loo amul pas-pas ba doo ca bokk. Baye Fall nag fa mu nekkoon jugu fa ba léegi ndax Cheikh Ibra fa mu nekkoon jugu fa ba léegi mais ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ñëw nit ñi duñu woowee ay Baye Fall war nañu am benn doxin bu ñuy def ndax amul lu ma ci dundul nag waaw sama papa dama ko doon tere ba mu waraloon mu jëlee ma sax Pikine ñu yóbbu ma Ouest ma nekkoon foofu noonu ngir di bañ doon dem si cant gi ndax li mu doon gis nit ñi doon ko dundee may fréquenté ñooñu waaye nag boobu amoon naa vision amoon naa lu mu bëgg amoon naa lu ma xam ba chaque jour maa ngi moytu ñu may séentu ci gaalu xaj ma fay lekk ndax cant dama jaraloon lu ne suñu borom da doon dogal sax bu ma bëggoon dem cant damay génn Pikine waaw ndax sama papa bu déggoon Pikine cant rek day xam ne maa ngi foofu te bu ñëwee du si xool dara ci samay kanamu nawle ci la may toroxalee nit ñi fekk nañ ko ba taay. te moom murid pire la Sadio. moo ma def moo ma gën a nekk Baye Fall sama papa moo ma jàngal lépp moo ma jàngal xasida moo ma jàngal lépp. moo may xamal may xam mais li mu doon gis moo ko neexul woon te boobu ñu ngi doon ay xale te xale dañ ne bant ca ba muy tooy nga koy jubbante bu ñu bu ñu amul woon ku ñu directionné tuuti rek dinañ am beneen yoon bu nu jël waaye nag ñi ngi sant Serigne tuwaa bu baax nag baaxuñu mais ñi ngi sant sëriñ tuwaa bu baax ndax euh, am na lu ñu dimbalee lu bare loo xam ne doon nañ ko sóor sam papa loo xam ne doon nañ ko ci sóor bu baax moo waral bu ñu bëggoon dem cant parce que man dama teel a dund cant ma juddoo ba léegi man cant rek laa xam mosuma xam ne dul cant sama tànk mosuma ko teg ci baat te samay xarit wala ñu may àndal xëy na ñu ngi dund lu mel noonu mais ay jikko lañ toppantee moom la ñuy ànd parce que doomu aadama jikko ngay ànd ak moom waaw dañ doon dem ay cant bu ñu buggoon liberté pour cant dañuy génn dem géejawaay wala ay liberté si jëppal côté beenee ngir mën a am liberté pour mën a dund cant bi ndax sama papa bu déggoon fii cant rek day ñëw waaw du ci seet dara waaw des fois un jour ma nettali benn anecdote rek. ndeysaan loo xam ne du ko fàtte parce que sama papa dama toloon benn dolu xasida bu ndaw boo xam ne moom laa doon def sama poche mais bu ma bëggoon dem cant damay même style bi sax ci foofu la jógee ñu bëri xamuñu ko dañ naan ma yow ni booy dem cant di sol ay costume ak yooyu noonu parce que bu ma doon dem cant anniversaire laay tàggoo wala soirée pour ñu mën ma bàyyi ma may mën a sol lu rafet tàggoo ñu bàyyi ma bu ma génnee dem. bu ma demee cant ba ñëw yenn saa yi ma guddee ñëw fekk ñu tëj kër gi. bu seetaanee dina reew a sonn léegi bu ma ñëwee ay cant ay 5 heures du matin damay guddee ci biir cantine bi fa dugg fa fanaan ay 3 heures yooyu bu ma ñëwee fa laay ñëw tëdd si cantine ba sam papa di génn pour dem jàkka ja bu génnee bu ma déggee mu yibbi kër gi ma génn dugg ci biir. benn jour nag ma biddanti ci biir cantine bi <laughs> benn jour ma biddanti ci biir cantine bi maire bi nag maire buy jaay mburu ñëw. heure jaayam jot mu ñëw dugg si biir euh, fekk ma ci cantine bi yeewu ma de daa dem woowi ji sam papa <laughs> ni ko xoole kii chaque jour maa ngi dégg lu yëngati fii nakate moom laak yooyu noonu nangal sama boole maag sam papa sam papa fekk ma ci cantine bi jàpp ma aram dóor ma dóor yoo xam yoo noonu aram loolu kenn mënu ko fàtte ba ak Serigne Touba waaw ak yeneen yeneen yoo xam ne du ay waxi du ay waxi télé yu ni mel mais ñu ngi sant bu baax parce que loolu moom moo lay mën a xam ngir ëllëg boo amee loo tee nga xam na nga koy teewee waaw waaw ñu koy santee nag bu baax sama papa maa ngi koy ñaanal bu baax di ñaanal sama yaay tamit suñu borom def ko jaam ñu fekk lépp mhm. waaw Baye Fall du ay fo ndax Seybro Fall macha allah kooku du ay fo kooku mooy dëgg-dëgg Baye Fall kon Baye Fall du ay fo du ay caaxaan ku defee ne ay folo rek yaa ngi nax sa bopp ma lay laaj sa digganteeg borom daaru ndax émission bi mi ngi bëgg jeex nag. waaw kooku papa la ci man kooku papa la ci man te borom daaru moo nekk jëmm joo xam ni maanaam ku mu jëflanteel rek da ngay jàpp ni yow la gën a bëgg moom ci nit yooyu la bokk parce que daa yemale ñëpp moom xàmmeewul taalibeem ak ku bokk ci moom moom mooy daamaa féetewoo papa taalibe beeg sëriñ beeg dañoo jël lool te ko neel mais dañoo féetewoo doom ak papa ndax chaque jour koo xam ni li lay digal mooy nangool liggéey nangool jaamu yàlla boo amee dara joxal say wayjur Laju kenn dara loolu bëriwul sëriñ ñu koy def de ba pare ndakaaru jublu ko loolu mu dëxañ lépp dem ci àll ba toog fa mhm. kon kooku mat ku mu mhm. man mënuma wax ci waaw wax ci single bi rek ëmm na lu bari aram aram li ñu def ni moo dàq sax toog di cant barke sëñ Tuubaa waxtaan bi nii wallahi azim ndax dama ne ko jullit laa julli la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 nga bu jaaxle na dem ca sëriñam lii lee waral jooyi tar ànd fi tuub defal ñu yërmande boole ci njub ko cerno borom daaro dundal dundal maam cerno borom daaro dundal maam daama faate dundal Bagai duut derem ak daraja mandama Mong iwan gerem ak wasila Mamdama Limo waral murau nyepe Bono pidapat dimbali nyepe ankal si say géeju a tur ñu mam daama ko saa nga sarax ñu yaa nu saf jëmm ji doy nanu moo la gënal sa jëmm ji lii leer nanu mam daama sa yàgg ak yokk weer ñun yitteel nanu waral yi lee ñaan toroxlu nañu mam daama si faayi mun kulli amal aafiyatan wasalli alayhi abadan daayiman mam cerno borom daaro dundal ma joxal ma ko gaay mbokk taalibeeg yëpp noonu laay nuyoo tamit waa doon benn say suñu daayira bi fii di ñaan suñu borom defal leen jàmm gun ñoo jiboole di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp salaam di nuyu waa koñ bi di nuyu waa Pikine parce que ndax wax dëgg yàlla dooley jën ndox di nuyu sama caméraman yoo xam ne Lil Pro sama rakku bopp ak Pape le caméraman le caméraman du peuple moom la ko gars yi di tuddee. <laughs> tuddee ko boppam gars yi ñoo ko tuddee ah. di ñaanal ñëpp di nuyu samay xarit aw ma seen fay ku ci mel ni Lil Pro Boga Pa Mbay Fay boo ma jaaga yab sa bu ma limee damay juum ñoom aada fay afiya ñoom Pam Malick sama raq yi may àndal fi ñoom nooyin mm-hmm. ndax euh, dañ na boo limee doo juum sax waaye doo matal waaye dinañ ma comprendre bu baax nuyu naa ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ku ko déggul la nga xam ni xel mooy fatu mm-hmm. waaw waa acca kon mi ngi noonu kooku mooy Talla Mbaye Mourtala ñu koy wax Mourtala léegi nag ñu daal di dem rek ci li ñu fi indi ñu bëgg a génne bongo bi rek ñu waxtaane ko def zikar waaw déet moom kay dama bëgg rek spécial bay Fall du benn rek ngay def waaw déedéet suxru ramadan weeru koor moo bari yoonen ba muy xare weeru koor la woon ramadan weeru koor yaa bari njëriña ba muy xare weeru koor la woon soxuru ramadan weeru koor yaa bari njëriña bamba bañ bañ naa sabila ba jannah seetal ci waxi bañ ba ku ma yéene jëfi bañ mu ne ko def mu ne suluñ daan di ma dugal fu may musal di ma felal lu ma ragal ku jëm ci man ak i mu boole digali balam di ma fegal pexe mu ñaaw di ma dalal rana ki déggunu kenn ki nuru Bamba gisuñu fenn te xamuñu fenn déggunu fenn ku mel Bamba Bamba di kenn te waxam di jenn jëfam di jenn kenn Bamba جنة وخم بجنة يفهم بجنة